dellu sargal Serigne Touba Xaadim Rasool di ko sant di ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ba naal yi mu naalal lislaam naalal ko maam ju tedd ji sëñ tubaa mu àggale ko sagoom te nu ànd koog moom. noo ngi fii nag ci jumaa ji ci Touba ànd ak kuréel gi nga xam ne kuréelu nii kuréel Muxaddamatul Xidma muy kuréel goo xam ne ni ma ko waxee woon ci koor ga mboolem ku yaakaar Serigne tubaa foo ma a ne ci àdduna bi ameen nga leen cant ameen nga leen jukkal ndax barab bii nu ne kat amuñu lu ko ëpp buñ nee Touba. jëmmi sëñ tubaa tax te jëmmi sëñ tubaa nag fii nga xam ne mooy këram di barabam te muy jumaay tuubaa ji mooy kër sëñ tubaa kon ñoom ñi fi ne di saytu liggéey bi nekkal fi taalibe yëpp amee na leen sant ak ngërëm ndax sëñ tubaa ci tukki bi ak ci nattu yi fu mu mën a ne tuubaa ko gënal ndax foo gis mu bind fii maske nii gum wax rek tuubaa la ciy teg kon ñoom ñii fi ne nekkal fi murit yëpp ñu ngi leen sant leen gërëm ñu ñëw fii nag ànd ak kuréel gi nga xam ni mooy fondation Nourou Daarayni Kër Maam Jaara ci njiital soxna Bali Muntaxa mi nga xam ni suba ngoon guddeeg bëccëg ak yëngu ak dalam mooy liggéeyal maamam mu soxna jaara waaye jaaree ko ci jëwriñam ji di Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér démb ci waxtu yi tembe ña nga poroxaan ci diggante jumaa ja ak ca barab ba di ko fa dem ca pott sante ba ak daara ja nga xam ne mooy daara maam jaara ji yóbbu fa liggéey bi liggéey bi nag dara warulu ko lu dul nattu bi nga xam ne yàlla sunu borom moo ko wàccee ci booleem àdduna ñu ko ciy sant bu baax nag te koy ñaan mu teggil nu ko moom mi nga xam ne moo nu ko teg ndax sëñ Moussa Ka daan ne nattub jullit day yokki maqaama mbaa mi sepp ñaawteef bisub xiyaama te can te ko ki rafet na ci njott bu baax a baax ndax murit yëpp tënku nañ ci benn say di déglu ndigalal sëñ Tuubaa Cheikh Mountakha Bassir kon ñu ñëw fii nag ci jumaa ji ànd ak waa kuréelu Muxaddamatul Xidma Serigne Abdoul Ahad Bousso mi ngi ni taxaw saa bu fi yebalee ñoom ñoo ñu fi fekk ñu dalal ñu teral ñu tatagal ñu yii ñu indi nag muy zel yi nga xam ni ay désinfectant la nga xam dañ koo alcoolisé liñ ci jublu rek mooy liggéey bi ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha ku ne gis ne bi muy julli si keroog dafa tàllal loxoom ñu jël gel bi sottil ko ko mu raayoo ko loolu nag am jàngale la am leçon la mboolem ku yaakaar sëñ Tuubaa rek Cheikh Mouhamadul Mountakha da lay wan yoon wi ndax bu tawat gi wàccee ci réew mi mu yëkkate ñaar téeméeri million def ko ci ba noppi jox ndigal muri yi ngir ñu sàmmanteeg ak bi nga xam ni moom la docteur yi laaj ndax an nasaafatu minal iman kon bu loolu amee soxna Baali wax ni nag moom ci tànk sëriñ bi rek lay roy yu nii démb moom la ñandoo Poroxaan tey mu indi ko fii lii di ay omo lii di eau de ak masque yi nga xam ni moom ngay sol ngir nga ne mucc ci doomi jàngoro bi ndax liñ bëgg daal mooy doomi jàngoro bi ñu rey ko ba mu jeex tàkk ci réew mi waaye mu génn fi nag ba set ba jeex tàkk rawatina barab bi nga xam ne amuñu lu ko ëpp muy jumaa ji moo tax soxna Baali ne bu jugee Poroxaan rek ab liggéeyam fii la koy jooj njëkkee ko fi feneen fu ñuy dem door faa dem loolu daal moo doonoon jéego yi mu boole ñoog jëwriñam yu tedd yi ñu ànd ak ñoom ñëw fekk si leen fii ci liggéey bi jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ maamu ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu kilifa yu tedd yi nga àndal yëpp di sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sant bu baax tey gën a jébbal sunu bopp Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom kattanal ko wéral ko sàmm ko aar ko ba li mu yéene ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi lépp mu àggale ko di nuyu nag bu baax ak a siyaara soxna maam Bousso Bali Mbacke euh, moom sëriñ Muntaxa di leen yóbbante ci ñoom moom itam suñuy nuyoo ak suñuy siyaar ak suñuy jaajëfal ci moom gis nañu taxawaayam bu rafet boo xam ne taxaw na ko ci liggéeyu maamam bii rawatina nag fii ci jumaay Tuubaa ñun moom amuñu ak payam mën nañoo wax ne daf ñoo beral loxo ndax jamono yu nekk mi ngi ñuy nemmiku mi ngi ñuy bàyyi xel mi ngi yëg ne loxoom waru fee jóg bëtam waru fee jóg noppam waru fee jóg te lépp lu ñuy def itam dafa gëm ne daf ko war a ànd ak ñun loolu nag wax dëgg yàlla rëy na ci ñun lool ndax ab soññi lay doon ci ñun ndax boo nekkee ci liggéeyub Serigne Touba geesu gis njabootu Serigne Touba ci sag wet daf lay gën a soññ moom nag taxaw na ci suñu wet bu baax a baax a baax ci wet yëpp te loolu tàmbalewul ci lii yow mii day ñëw nga fi ñëwati fi ñëwati fi ñeneen it ñëw nañ fi ñëwati fi ñëwati fi te loolu lépp ci moom lay bàyyi ko gëm gëm gëm nag ne dafa war a def loxoom ci liggéeyub Serigne Touba bii loola moo war a nekk gëm-gëmu képp koo xam ne njaboot la gu bokk ci Serigne Touba te yaakaar naa ne ñii ci ëpp itam wala ñëpp loolu mooy seen gëm-gëm tax na nag li mu man moom lépp mi ngi koy def ngir feeñal loolu seereel nu ko ñu nekk seere ci digganteem ak Serigne Touba ci jëf jooju yi donte nag néew nañ ci doole lool donte néew nañ ci kàttan lool waaye mu jàpp ne bu ñu nekkee fii rek ci barab bi di liggéeyal Serigne Touba mën nañoo jël seere ci digganteem ak sëriñ Touba ci muy jëf ci Serigne Touba loola rek moo tax mu di ko jaarale ci sunuy loxo kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal ñaan rek lañ ko mënal li ñuy ñaan mooy sunu borom bàyyi ko fi may ko wér bàyyi ko kilifaam gu baax gi lu yàgg yàgg yàgg yàgg ñu yàgg ànd liggéeyub Serigne Touba bi indi na fi lu doy lu bari ci eau ak omon ak sel ak ay masque ak ay saabu kon mel na ne moom set googu ñuy wax ak sàkku gi ñuy sàkku jàngoro ji jóge fi def na ci loxoom bu mat sëkk mel na ne su doonoon loo xam ne ci loxol doomu aadama la nekk mu de ko sekki di sànni moom daf koy sekki sànni ndax lii mu jëf yoone ne yéene jooju kon nag ñi ngi koy wax ne ko ñi ngi sàkku ci moom ñaan di def tawasul ci njabootu Serigne tubaa gépp rawatina moom mi nga xam ne yëg na ne taxawaay bii war na ko taxawu Serigne Touba ñu ñaan ba lii moom jóge ci àdduna bépp jeex fépp ni mu amee yéene ci barab bii ak barab yi Serigne Touba yëpp ba di ko fa jëf noonu lañ umpale wuñ ne noonu la amee yéene ci taalibe yi Serigne Touba yëpp kon nag na ñaan ci barkeb Serigne Touba lii jóge fi ba faw ñu bañati koo gis ba faw ñoo ngi koy sant nag di ko gërëm te di ko ñaanal ci barkeb maamam Serigne Touba mii te di ko bàyyeek moom ngir mu wuutuñu ca moom fayal ñu ko ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.